wow wow wooy te na ngay jooy ma ne ko looy jooy mu ne ma tojum kaani amatuma fu ma làqatu ma ne ko lu tax loolu mu ne ma bada cheva dikk kuy bada cheva borom cheva yu baax yi borom greffage yu baax yi ah dama nek Senegal njaay yewu len senegal njaay waji dekk na wajah waja waja ngi ni pas de cheveux nek fële ci pikine centre commercial elage Mamadou Fall premier étage pas de cheveux loy jaay mune ma ngi jaay ay greffage en gros manam greffage nga xamanteni ci bi bo beugé dara du ci jog greffage yu ne ñum ah dama ne nga tek ci lan mune dama damay demi gros manam bo beugé xaj bu ah dama ne ay ba de cheveux mané ko fofu nga yam mune de de tojum kaani damay di tay pour ñi nga xamanteni bi amuñ goro wala demi gros 100% Virgin Hair centre commercial El Mamadou Fall Sénégal y a un numéro de téléphone qui est 77 410 75 76 alors 78 404 38 14 ah Sénégal il y a un petit ak bata cheveux bata cheveux ah dama